Thank you. asalaamaaleykum salaamaaleykum sant buri buri yeeg kàttanam julli ci sang-sang yi gërëm dem sant sumay ñaari waajur di sant suma yaakaaru tey ak suba Cheikh Ahmadou Bamba ba Basak Baara góor gu tubloo maaxaan yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Baabul Muridina góor dëgg Baye Lalla Fall daa bay maam bu Ndiaye góoroo góor moom mooy góor Euh, nuyu leen jox leen seen wàccuwaay saa su ne yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo taamu di bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy émission bi leeral làmb ngeen ànd seen xarit seen sopp seen doom de DJ Rissa muy hmm, fii ci biir Sahel Network ndeysaan muy euh, télé bi gën ci télé ah ñuy fas yéene xuus euh, indi lépp loo xamante ne lu leeral làmb la tey nag ñu am fi ki nga xamante ne càppaacul la ci biir Gambia kenn du ko natable ndax bi mu ñëwee boobu ak léegi dafa forcé bokk par la force ñëw téye làmb ci biir loxoom tey doo tudd làmb te tuddoo ko ci muy ndaanaan bi nga xamante ne mu ngi bàyyi foofu sa club jëf jël hmm, buñ ne jëf jël na xel yëpp dina dem ci Manduwaar euh, doomi Jalekounda boobu waaye tey déedéet du moom de rakk Manduwaar lañ fi am muy ki nga xamante ne moom mooy bébé xarañ euh, barki démboo Ndiaye moom moo dem foofu ca diwaanu Sénégal yóbbu li nga xamante ne moom mooy red white blue white green euh, teewal fa li nga xamante ne moom mooy Gambia di smiling coast of West Africa ah ndeysaan mu def ay jaloore yu bëree bëri ci biir làmb tey moom la ñu àndal mais balaa may def dara damay nuyu sama consultant muy euh, Boy Gueye euh, moom it ma dalal ko ci biir émission bi ne ko champion nuyu naa la. waaw maa lay fay di jëriñ sax maa lay fay di nuyu di nuyu champion bi daal fi ndaanam bi mm-hmm. ma koy nuyu baax a baax a baax di nuyu képp koo xam ne yaa ngi kal sa xel ne rek TV ñu lay nuyu. bu baakha baakha baax baax da ci sa wàcc di nuyu kep ko xamne ne sifur lamb ngi lay nuyu bu baakha baax baax bàyyi ñu kenn lamb bu ñu waxe ahlu lamb rek bayu ñu kenn ñi ngi nuyu ñep mhm. bayu ñu kenn aussi ndeysaan limay def rek may ñew jox champion bu nuyu ki nga xamantene su jógee mbolo mu takku ñew jog bu doxé nga ne modlo ngi bu béré nga ne ndaanaan na ngi ni muy euh, bébé xarañ bébé xarañ champion bi doomu aladji mbay ji sama papa ji ma ngi lay nuyu bu baax baax au passage aladji mbay nuyu na la jox la sa way bu baax baax Bébé Xarañ maa ngi lay nuyu. waaw onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu sant yàlla bu baax julli si yonent bi gërëm suñu ñaar waajur mm-hmm. xam di nuyu suñu papa Baye Birame di mm-hmm. nuyu suñu grand mandoir ak équipe bi yëpp jël jël mm-hmm. waaw dem Sénégal nuyu suñu grand Modou équipe bi yëpp ko Pape Mbaye ak gars yi bi yëpp rek énergie bi di nuyu samay supporters mm-hmm. fans club kunda, Fajikunda mm-hmm. kunda Neema mm-hmm. Costa Route ba Yuna Birkama kama xama dem nuyu wa senegal wa fans club bi Xereñ salum ah, nuyu sama wa koñ Pikine ñom wa Orange mané bi wa Jaloore Ceddo ciaro jide bi xama ñetti mbar gaa yëpp maa leen nuyu di nuyu wa Gambie bu baax baax baax fi xamne xama fi la defee fi la commencé sama carrière. Mhm. waaw di nuyu ñëpp daal di nuyu Boy gay xama mhm. jël nuyu bu baax. ndeysaan kooku ngeen dégg mu nuyu noonu moom mooy bébé xarañ euh, bébé xarañ xam naa fi may njëkk ñëw ci yow rek muy kat mooy bébé xarañ ak bébé xarañ lan moo ko dugal ci lamb ndax bébé xarañ daf ko doon ci deret la wala bébé xarañ dafa am kum ci roy wala lan la lan moo la dugal ci lamb lan moo la neex tey ba nga xëy takk ngemb ne dama fas yéene doon mbër. waaw ñu li ñu duggee si làmb moom mun nañ ne xama toppandoor la rek waaw hmm. nekk xale xama hmm. grand bi di bëre di ànd ak moom di supporté xama grand bi mooy kan Modou hmm. jékki-jékki di toppandoor def ay affaire am xama di ko roy Modou ban Modou Modou Lo wala Modou Lo bu Sénégal waaw ah, di ko toppandoor xama su bëree xama kele def si ñëwee di ko foyee si mbedd bi affaire yooyu noonu jékki-jékki daal xama rek dugg si ay mbapat Hmm. di jël di jël dem ba xam ne daal war nañ mën a def dara si làmb ñu commencé entraîner. Hmm. yàlla def ñu dugg si Gàmbi ñëw nekk si ay loxo wóor. Hmm. gars yi jàppale ñu. ba tey xam nga ñu egsi fi ñu egsi ku si mel ni Alaaji Mbay tey bu may ñëw fii nii matuma sax 50 kilos. mais si loxoom moom moo ma téye di ma defal lu nekk yor ma ba tey ji ma mën a. ñëmé dugg fu nek naan ma ngi bëré mhm. mais bébé xarañ kon suma la déggé ci say biir cadeau dafa melni euh lamb mo la jëlé Sénégal indi la gambi non non non. lamb la ma doon aaye Sénégal. de mo indi gambi ma ñëw yalla def limuy def fi parce que dama doon jang école. Mhm. xam rek di wara may wara jang sax dem di fay ay 200 di seetaan entraînement Modou xama di top Modou rek. Mhm. xama ba sama jang na yaa ko après ci lañ ma transféré indi ma Karang fii. ci fa def trois ans ma am BFM ñëw si liise bi fii nii. Mhm. def sama yeneen trois ans jeexal terminal après mooy loolu. nga dugg ci làmb. non avant loolu sax maa ngi bëri wantu xam nga ay kunku jàng. ma nekk Karang mhm. tamit maa ngi mbapat. Mhm. waaw ay mbapat yu ndaw nii rek. ma ñëw fii tamit continuer waaw yàlla dafa def balaa sama jàng di jeex xama ñu gis buntu. waaw ma am yaakaar ne buntu bi moo gën a gaaw bële rek ma yaa ma gën a xam. mais est ce que bébé xarit mën nga ñëw indil ñaata trophée nga jël ci biir lamb tey jii euh, li nga xamantene bokku la combat nommé say trophée yi nga xamantene dañ ko jël ci mbapat ak yoy non mën nga ñu ci indil tuuti ay léral waaw luma jël ci mbapat mom bari na trop hmm. bari na trop trop ay drapeau wala ay nak wala ay lan non musuma jël nak nak hmm. mais jël na ay drapeau jël na xaalis hmm. ay saaku ceeb xaalis bu toll ñaata non xaalis xaalis rek xaalis rek bëri dafa bëri xaalis rek. ah xam nga mbapat day am ay ay ay millions. waaw mbapat day am jëluma million jëluma million mais jël naa xaalis. waaw jël naa xaalis bu bëree bëri moom dëgg yàlla. ndax bu may jàngee kaarang sax demoon naa ba école bu ma nekkoon dañ gaa dañ ma dàq ndax làmb. xam nga gaa bi ma dàqee ñeme ma ko wax sama papa Alaaji Mbay ne ko dàq nañ ma école. si laa dem si école privée bi. ne jàng naa ko deux ans yoo xam ne yëpp maa koy fay sama bopp te yëpp si làmb laa ko doon am. lépp ci xaalisu làmb nga ko jëlee di ko fayal sa bopp. lépp chaque mbapat. chaque chaque semaine wala deux semaines. Hmm. lu mu ndaw doon naa gagné ñaari mbapat wala ñetti mbapat. Hmm. di ko denc weer dee may fayal sama bopp di jëndal sama bopp fourniture xam nga ba ba affaire yi jeex ba ni saa am sama nga dem modèle bopp hmm? saa dellu bopp si laa am si laa noonu laa def ba am BFM eh. wallaahi si laa si la ma gars yi transféré fii nii si lycée Kanifing bi mais mën nañ mën mën nga ñoo indil tuuti bébé xarañ lan moo ko indi ci club jëf jël lan moo la booleeg waa jëf jël. waaw man bi may ñëw Gambie 2012 2013 laa ñëw fii. Mhm. bi may ñëw fii boobu xaw ma sax ndax làmb am na fii parce que gars yi ma doon ay làmb fële indi ma bi ma ñëwee ma tombé man war am combat. digganteem ak kan digganteem ak gaynaaw ko ak kunku jàng. Mhm. làmb bu yàq woon noonu. Mhm. bi may dem sa daat dama ay eh, dama yëg si moto mu ne ma wàccal. après ma baye ba gars yi dem ma top ci ginaaw moto bi top len ba ba xam gàlle bi ma ci ben keur lañu lañ ba fa tay ma taxaw ci ginaaw di seetaan xam nga hmm. seetaan seetaan ba ci yagare après c'est la top ci miir bi ma dugg ci bir tam bi mandar bi bakku non coow beur rek ma tëb dugg ci bir c'est la ñew xam nga top ci ginaaw mandar ni xam nga rek affaire um hmm. jek jek rek daat bi gis ma xam nga xam nga rek dama ya yaa bop boobu affaire yooyu nga ba ñew c'est hmm. la ñew bes bop la njëkk beure fi ma ñëwee nongu si sa tegal ñu xamante dalasi man ak top 5 ñu bëri woon foofu. ku ma ma daan ko. depuis boobu nag laa commencé dem Kungu jàng chaque samedi ma dem fifty hundred fifty hundred xam nga. Mhm. di si bëree di si bëree ba yàlla def benn jour ay tubaab ñoo fa teg fa benn tournoi bu mag. Mhm. waaw mag ma bëri si bëri si ay ndaanaan bëri daan leen si. Mhm. bi ma ñëwee ñu ne ma yow xam nga ñi nga daan xam nga di ma limal boobu caat caat rek jënd moori. caat waaw waaw caat bi waaw. ma ko daan si jour hmm ak yenen champion yu bëri ay ñoom génnaa ko ma leen hmm bés boobu Nayleer la daan final. hmm Nayleer bu nekkon bundung fii nii. Nayleer waaw. waaw ma jël coup bi. Mhm. après après dal c'est la ñëw gaay yi dama ma ñëw di seraan lamb ma gis né tournoi bo ñuma ma ñom la gis ñi am ay combat name fi di ciow ma ne kon man war naa mun am combat mo bëré comprendre nga. yoon la si laa commencé topp Mandoor dem entraînement. bo gaay yi ñu entraîné si boobu zone bi ma top gaay ñew entraînement dem ba ci ag bax ya jële ma foofu indi ma fi banjo waaw ben tournoi hmm ma ñu bëré waat jël tournoi bobu hmm après c'est loolu baax indi waat jox ma combat nommé. sa digënté kan. suma digënté mboran mboran bu ndaw. mboran bu Ibo Town. waaw mboran Ibo Town. hmm waaw ñu ñew bëré fi ci school bi. gàpp jox ma waaw moy lolu après c'est la bobu ko daan. Hmm? non affaire dafa jaxaso ñu jox victoire mais grawal mom mo daan lay borom parce que man mom ku victoire mom wa mom moom du ma sante victoire jàmbur mais nga japp ne mom mom moom moo daan dal yow loolu nga japp ba tey non arbitre ñoko jox victoire mais jël am fa wa kon kon kon kon manam mura mo daan rek mo mo am mura mo daan moo garaawul moo am daan après ñu jógee fa mhm. xama di bëre am ay combat yu bari am si ndam mhm. xam di bëre di bëre di bëre di bëre combat di bëre tournoi xam nga di mhm. jël ay tournoi yu bëri. Mhm. dem ay kanilaay dem fu nekk jékki-jékki rek xam nga yàlla defal ñu sutura ñu mën a am ay combat yoo xam ne nit nañ koy bàyyi xel. Mhm. ba tey. waaw Bébé Xaragne nekk mbër moo xamante ne su amee combat coow li day bëri. ah ba ci biir combat sax coow li day bëri ba après combat sax coow li day bëri mën naa la ci pointel sax benn combat euh, sa diggante ak malien. ñu ne bébé xarañ daan na malien dugal na ko ku mujjee kiw siti sax gis am benn xëccoo bu am sa diggante ak malien ndax dafa amoon lu doxoon sa diggante ak moom avant combat bi wala da ngeen dem ci biir làmb ji mu wax la wax ju la neexul wala lan la lan moo xew parce que yàgg ngaa bëree te dafa lu mel noonu nga bëri euh, malien nga def lu mel noonu. daan daan nga bëri dugal ko. waaw daan ko pare dugal ko ku. waaw dañ koy nuyuwaale au passage champion boobu xam nga nekkul loo xam ne lu ñu tay la parce que làmb la yenn saa nga def loo xam ne sax après da ngay toog di ko réccu loolu dama ko réccu bu baax parce que nekkul lu nice xam nga nekkul loo xam ne lu luy rafetal image làmb la mm-hmm. après jégalu naa ko woo naa ko téléphone mm-hmm. bëggoon nañ fa dem sax mais fekkoon jour boobu am na feneen fi waroon dem am na ko am jàkkaarloo mm-hmm. ñu waroon dem foofu moo tax mujj ñu fa dem mais déggante nañ après waaw làmb la rek affaire yi xam nga rek yenn saa sa deret tàng nga def loo xam ne nii sax mooy loolu waaw mais Bébé Xarañ tey mën nañoo mën nañ la laaj ci sa combat yi nga am yi nga perte ban moo la ci gën a métti nga gëm ne bii damaa daanu tey te waruma woon a daanu ndax euh, sànq wax nga ma ci suuf ni am nga 17 victoire euh, ñàkk foo défaite euh, foo léegi ci biir foo combat yooyu nga ñàkk ban défaite moo la ci gën a métti. waaw défaite bu ma ci gën a métti mooy son premier grand combat. son premier grand combat man ak Robel. Robert Boudiama waaw ah Robert Boudiama <laughs> parce que dama ñëw na bi yoo xam nañ ne du ma moromam. <laughs> ma ñëw naagu xam nga sax. jël xaalis bi dem jënd ay yére ay dàll di noonu xam avance bi. <laughs> ma waajaloo combat bi. li jëntuwu ma ko sax. barke alxuraan gaanaan ma yow Robert daa am gàllaaj affaire yi man leen non kii mooy loolu. Hmm. kii amul gàllaaj day sóob rek. ma ñëw ba si biir combat bi keroog laa doon gëm ne gàllaaj am na. ñu yow la waaw après bu ma bëree ba pare. si laa toog ma ne dëgg-dëgg waaw man nag war naa commencé jug sama boobu daal xam ne làmb ji léegi nekkutul entraînement kese at mun a bëri quoi. Mm-hmm. waaw combat boobu daal wax dëgg yàlla te lu ma lu tax mu naxari ma mooy dama leer doon ma bëri waat ak moom. ndax la lu tax non bokkuñ niveau. fu mu nekk yow da laa daan ba pare nga teggi raw ko. waaw loolu mooy problème bi non xam nga tey su fekkoon ne mbër moom da laa daan. mu na ne lamb ak leer loolu moom ñaan ma yàlla yàlla moom dellu ginnaaw bay bëraate rafet moom. non yow mun nga dem ci kanam moom it mu dal fekk la si kanam mën na ne. ñaanuma yàlla ndax yow ñi nga fekk si kanam tey da leen a dabu. waaw ñooñu xaaru ñu la de ñooñu dañuy naan di dem nga daan fekk leen. waaw ndax rafet la ñaan yàlla bi suñu tijjee mu am five combat yoo xam ne dafa koy teel ay ndam Hmm. bokul ah te pour am ndam moy lolu mais legui ginnaaw lolu tay kan nga mësa daan rek nga xamné carrément ki amoon nga rêve ya nga bëgg pour bërek mom tay daan ko nga daan ko kontaan ci kan la. non comme ñuma rêve daan mom bëreegu ma see kenn wax dëgg yàlla. Hmm. Hmm, waaw. mais legui mën naa ñëw xamna né fofu foofu fa ñu ci kanam. bu ñu combat bu mu gëna neex moy classe bu mag bu ma jëk a fi moy yaaya bu organisé won ki bour promotion. tuddee woon ko yaa jame classe bi ma si dugg damaa ñëw. xam nga boobu maa ngi pesé 66 kilos 66. 66. man ak top 5 ñoo demoon ñu ne duñ mën a bind ñaari mbër ñaari mbër si benn drapeau comprendre nga. Mhm. si laa ne sopp nag léegi bëre 66 man ma dem bëre 76. ma dégg si lu nekk daa waane xamul boppam. dafa dañ na waaw. ma gëm lu ma gëm dem entraîné ñëw daan si ay ndaanaan yu bëri jël tournoi bi. Mhm. waaw loolu moo ma gën a neex sama carrière. ci mbër parce que nit ñëpp dañ si xeeboon daal ne mënu ma ko jël. yàlla ñu suturaal ma ma jël ko. Mhm. waaw mais euh, ma ñëw tuuti xam naa suma paree dinaa jox suma consultant mu am yu mu la laaj ndax du ñàkk ay question yu mu la dencal mais bébé xareñ gis nañ nga jóge fii sa first time nga dem bëri ji Sénégal ah combat bi man bokk ci samay gis-gis toujours damay topp sa Facebook xam naa ne xamoo ko damay topp sa Facebook di xool gis bébé xareñ entraîné entraîné entraîné foo gis mu photo rek di nga xam ne kii carrément dafa yenu combat Hmm? Bébé Xaram ñëw ci biir géew bi bëri fa lu leer nañ ñëpp jóg apprécier mais ñu gis ba jël amee Bébé Xaram toog mel ni ku découragé wu xanaa da ngaa gëmoon ne da ngaa daanu wala lan la. mosuma gëm ne daanu naa. mais la moo waral toog bi. combat balaa arbitre di siffler sax ñu xam làmb dëgg ñu xam làmb dëgg dëgg. Mhm. soo ma xoolee nga xool booy bi xam ne kii du man ak moom sax. Mhm. dafa nekk ne Sénégal xamaguñu ma rek moo tax ñu am may am mën a bëri ñooñu xam nga su doon la xam nga du ma bëri catégorie boobu noonu. Mm-hmm. loolu moo tax mais dafa am yoo xam ne nii comme yow nit làmb nga su ma la waxee di nga ko a comprendre. Mm-hmm. tey boo gisee combat ma bëree ko noonu. Mm-hmm. man maa xam lu mu doon yëg si biir géew bi. comprendre que tey combat dafa nekkoon combat boo xam ne dafa demoon ba comme gars yi mën ko jàppale doom mais dafa nekkoon combat bu mag. waaw ndax coow dafa bëri woon. te booy boobu si loxo Balla Gaye la nekk. man ma nekk. ci loxo Modou Rock Énergie géej waaye. combat boobu mun naa ne bu grand combat bi combat mo moo ci Dakar ñëpp dañ ko waxtaanee radio yëpp. comprendre nga. xam nga affaire bi balagé jël boy bi def ci lepp mhm. jour bi ñi fa la face balagé mako moo auto mu ñëw xam nga. Mhm. jaxar lo mu yóbbu ko def ci lu nekk. Mhm. man ma ñëw gambi ñaan dimbal comprendre nga. gaay du mooyu ma ñu ma si jàppale bëriwul. am na ñu ma jàppale waaw amna na ñu ma jàppale. combat boo xoolee da ngay xam ne dañ ma gagné si mystique parce que leer na mënu maa xeex ak Balla Gaye si xaalis affaire mystique. Mm-hmm. waa léegi boobu boobu ana am sa waay Modou. non Modou combat fekk ko fi. ah fekk fi. fekk ko fi. Mm-hmm. Ah, mais muy même yónnee dara mu yónnee xaalis. ma jugee fa ñëw Gambie. Mm-hmm. dama dem fekk ko mu ma jugee fa ñëw fii dem nañ si ay compagnie dem nañ fu nekk mais gisuñ dara. sama papa laaj Mbaye mau si jàpp sama gars yang usman Ousmane Omar Cissé yang hmm. Boylo hmm. yang Tidiane hmm. sama, nga ak su ni sama père Boy Melax yang Nonga Cissé sama, yang Demba job ñooñu noonu xam nga ñoo si jàpp mais dafa waroon am ñeneen ñu si orang gën a wah, waaw maanaam compagnie yu orang yang waaw waroon nañoo xam ne seen doom mooy génn Gambie. parce que waaw loolu yoon la ndax xel pour suba ëlëk bu fi mbeur di ko di dem Sénégal tamit nañ xamné ne flag yi réew mi lay yobbu bu daano dañuy naan tan Gambien bala ñuy naan daan na diw. wala daan na diw Gambien lañu jëk wax. ndax ndax lamb yi sax maa Gambien bi Gambien bi Gambien Sénégal ndax ko won maa ngi mm. Gambien bi Sénégal bi Gambien Sénégal bi. Mm. waaw waaw léegi su ma neexoon man dooma fi dëkkuma fi mm. yow kéro ku ñëwon pikin dina xamné beri man pikin. la dëgg mm-hmm. parce que luma fa génnee bari magi ci bari sax bi nga fa comprendre su mën na dem né dooma pikin la ma représente pikin mais bu génné sama bunt fala falaa la Gambie ni ñep xamné ñëpp la ne té du ma si ragal ma si comprendre nga man Gambie la gëm parce que lu lepp lu ma am tay Gambie la ko amé lepp lu ma doon Gambie la ko doné da té dara du tax xama mhm. ma ma bayyi Gambie dem fenen xalaatuma ko comprendre kon ñun suñu jógee fi war dem gaay dañ si war a voilà suñu su mënu japp tamit ñu bàyyi ñun lu am mais fi problème leen la gaay duñ si jàpp ba paré dañuy nek suuf di la xeex pour nga daan waaw loolu moom wax dëgg fa ne yàlla loolu ñu koy def war nañoo seetluwaat seen bopp bu baax a baax a baax ndax loolu ñaawal nañ ko bu baax mbër moom boo ko jàppalewut bàyyi ko ak mu dem ak ñi mu war a demal mm, mais jàppale woo ko ba ñu am ak néew lu ñu yàlla may def nañ ko si mm-hmm. bëri nañ yàlla may nañu ndam ñëw nañ feete ko mm-hmm. comprendre na te corona moo tax sax mais corona instant dañ doon amaat beneen combat amoon war nañ ko am ay trois combats ren. mais feebar yi mooy loolu. Mhm. waaw ñu koy sant yàlla rek te xam ne lu nekk si kanam mooy gën a neex. incha allah loolu am na solo ma bàyyi sama consultant mu ñëw euh, du ñàkk loo ko bëgg a laaj. waaw euh, rek mooy xëy euh, comme fu mu jëlee mi combat boobu Sénégal yàlla foofu noonu keroog man man sax man mii nii keroog wax dëgg yàlla sot naa moom man. waaw ndax keroog fu ma fu ma toog waaw man moo xoolee bi ko xoolee xool booy bi dama ne ah. combat bi moom combat bi mën naa ko yàgg. mais man moom bu mu indi indi ci benn. combat bi bi ba si am dama gis mbër mu toog xam nga xaw a booy bi jóg daw zibil yuux arbitre xam nga. Hmm. arbitre yi tamit yëkkati loxo booy waaye fu képp koo xam ne nii yaa ngi foon. Hmm. da na Gambie moo daan. Hmm. ba ba ñun ñi nga xam ne ñoom la toogaloon sax wax dëgg yàlla dañ ne euh, Gambie moo daan waaye tamit làmb doon la làmb ak loolu ñu ànd. soo boobu léegi tamit ñu ngi ñu ànd. bind na euh, naka euh, recours affaire yi waaye ba léegi da diggante dara daal mm-hmm. mais tamit buñ jógee foofu tamit xëy na am loo xam ni ba manque bëgg laajat muy jamono toll ni kan la kan mën a kan la soxla ak yooyu ah, xanaa kay mu nekk amagum xiifal moom war nga ñoo limal tuuti fi mu nekk amagum am na ñu xiifal boog wax dëgg yàlla moom instant moom mooy loolu rom naa fu may toogee naan joxe ma diw mosuma ko def sax mm-hmm. waaw benn laa ko mos def xam nga mu yoo kan ñu sikk ma si xam nga booy bëri dama si mere moo tax léegi ma bàyyi woo ah, parce que dama fi dëkku building xam nga te building samay ay booy yu bëri samay booy lañ gars yi mere ma si xam nga ma dégg si lu nekk mm-hmm. waaw a nii dama am seen fans club am ñu may bëggee ma supporté mm-hmm. waaw loolu moo tax man daal ku ma la am booleel daal dafay des si moom rek bàyyi ma fi kenn defuma fi dara raw ma kenn ku ma la booleel incha allah ma fayee lu ma bëgg damay bëree kon kay baam baam ñaan ko sens kon dama bàyyi sens <laughs> dafa des yow rek ak promoteur bi promoteur bi su ma fayee lu ma bëgg rek bëgg incha allah. dégg nga waaw ah, ah, ah, waaw moom xam nga moom nee na des des na ci yow. te man xam naa xël na kii bu ko promoteur seet di koy dellu avance man ba may xam bébé xare di tey ndax bu dul dara bokk nañ benn géew boo xamante ne maa moom sëgg nañ bëri. waaw ndax jour boobu bëri na ci ma bëri ci moom xam na bés bu ma koy wax bokk nañ benn tàkkusaan kon tay euh, bu may xam bébé xarañ di tay musuma ko xamé tapet musuma ko xamé ñàkk fit musuma ko xamé delu avance té bu ñëw ci lamb du woné ñàkk fayda du woné du la won ben bot yit bokoy yabé dina ñëw lim wara def ak ay supporteram dina ko def li war ak wa ekirem dina ko def bu dugg ci bir géew bi dina def liko war man lolu mën naa ko seede ci mom lo bañ bañ léeg nangul ko ab mën daawam ak nopi gudd wa ak nopi gudd kon tay euh, bu ma waxé né euh, amana tay boko ko sens si ñaan sans nga tollu ndax eh, bëre nga ak eh, problème nga daan ko tay amana mom amna fu mu tek bëtam waxul mais amna fu mu tek bëtam bébé xana ñu laacc ah. ndax bi bii nekk sama premier plateau ak mom amna ah, ay plateau plateau bébé xarañ di laacc mais amna fu mu tek bëtam ah bébé xarañ waaw lam mom képp ku si nekk di entraîné sa way amna amna am na ñoo xam ne ciblé nga ciblé nga ñom nga wara ñom ñoom nga war a parce que tay wax na ko légui combat la laaj nga ma nga ne ma ndax sa victoire kan nga ci dan ko la gëna neex man la man ñima bëgg dan ak bëre bëreeguma ak ñom mais doo ma limal ñoo ñi nga wax ma kan kan saw la ñet ci si ni building mhm. bëgg naa kaa daan mhm. Sadio Banjel bëgg na kaa dan Sadio Ban Rambo bëgg na dan <laughs> waaw lim lim combat la ndax li tax mané la combat la ah bébé xarañ amna 17 victoires ci yimu tok bébé xarañ ko seetoon jox avant Sadio du jël ah ko jox avant Sadio do jël dé ah waje bébé xarañ waje fa nek mu mu tok fi ci plateau bi di wax rek avant Sadio su ma hmm. demee bay bay delloo avant Sadio ma bay entraîné yow fajar di entraîné khalis saal xaalis hmm sama samay supporter di def ay meeting chaque dimanche ah, di ñak sen khalis Ah? Ah, man de ma fit. di daj lu nekk si man. yow koo xam nga ñëpp ngay daw ne a dafa a xeex. du mm-hmm. ma defal lu nekk chaque jour. Mm-hmm. man ma dara. Mm-hmm. ma dem bay delloo avance ma bàyyi bëri continuer sama liggéey. kon yéen mbokki seetaankat yi yéen yéen a dégg li nga xamante ne moom la bébé xarañ wax kon xam naa li may def rek dama koy bàyyi mu tàggoo kontaan nañ ci moom trop bëggoon nañ mu gën fee yaatu waaye yoon yi amul ci benn lépp loo xamante ne rek. bëgg ngeen koo seetaan ci wàllu làmb ngeen bëgg leerlu topp leen ci leeral làmb ñoo ngi fi dara du fi nëbbu bébé xarañ tàggatoo la ñu daal. waaw damay nuyu sama fans yi rek. Mhm. waaw ku si mel ni Modou Diop fans président fans club La Rumba. Mhm. Ah, ku si mel ni Thierno président fans club euh, Brikama. Mhm. Laye président fans club Costa Route. ak Omar Omar Ba président fans club Yuna. waaw. ab jaata président fans club wéré ngaram maa ko maa ngi nuyu ñoom ñëpp hmm. wa dem Sénégal di nuyu sama fans club nek foofu hmm. président fans club nek pigit lay mbay hmm. président fans club salom bi di Assane ma ngi leen nuyu ak sama gaay yëpp ma ngi leen nuyu di nuyu sama wa deuk sama wa sama tonto yi nek Saint-Louis dañ lay ñaanal di leen nuyu bu baax ñoom tonto Massaw ñoom tonto Moulay xama ak ñom tonto jëna sama tonto yëpp dal mënuma lim yëpp comprendre nga di nuyu wa Saint-Louis bu baax wa Dakar xam nga mm-hmm. di nuyu waa Gambie di nuyu sama yaay sama papa xam mm-hmm. di ñaanal ñëpp jàmm. Mm-hmm. di ñaanal champion yi nekk fii yëpp kenn ku si nekk loo bëgg si làmb yàlla na ko yàlla defal. amiin waay waaw di ñaan yàlla feebar bi na fi gaaw jógee incha allah. ñu continuer suñu activité. mais Bébé Khary noo gisee télé bu bees bi nga xamante ni dafa juddu pour dooleel li nga xamante ne moom mooy làmb muy Sakhel Network. waaw kontaan si rek kontaan si rek te yoo xam nga suñu waay moo bi ma woowee. paa wax ma ko ma ne ko garaawul kooku moom mooy loolu. waaw ah, ndax yàgg nañu seq ay plateau. waaw di ñaan tamit affaire bi dem ba romb fii. ndeysaan waaw di dem ba def lamb yi ay direct. amiin waay yàlla mën na ko affaire bi liggéey la ñaan xama yàlla ñu si yàlla may Pastef rek ñu liggéey ñun ñëpp. amiin amiin waaw nga dem ba mel ni Bécaye Mbaye fii ñu tam ñu dem ba mel ni Modou Lo. amiin waay amiin waay demal suqal làmb bi yëpp di ñu dégg incha allah. jërëjëf mbokk yi kooku mooy bébé xarañ bu jëf jël ma bàyyi suma consultant rek moom mu tàggoo ñu tëj. waaw Risa ah di nuyu di nuyu euh, champion bi nga euh, bi nga dalal nii rek wax dëgg yàlla am na solo li mu fi jot a leeral. Ah, macha allah wax dëgg yàlla ndaanak la ah mhm. dëgg yàlla ndaanak la moom képp koo xam ne tey topp ko déglu ko rek mhm. di xam ne kii ndaanak la waaw di nuyu ak lamb yëpp bàyyi bi kenn mhm. bu ñu limee rek dañuy juum ñu ngi nuyu ñëpp jërë ngeen jëf yéen ñi doon seetaan seen xarit seen soppi seen doom de la woon di Rissa ànd sa ki nga xamante ne moom mooy euh, Boy Gueye suma consultant ànd seeg ki nga xamante ne moom mooy bébé xarañ gars yi jàngi jëf yéen ñu doon seetaan maa ngi nuyu suma caméraman bu mag bi euh, Wilfé di nuyu suma yaay Mami Coro bu baax a baax a baax di ziar yéen ñëpp caaw caaw ba ci beneen jamono